transition énergétique ak yemale ci wàllug genre loole mooy thème bi nga xam ne taamu nañ ko ci ñetteelu édition conférence économique internationale bu Dakar jeexital bi nag mooy dajale ay chercheurs yu bëri joge ci àddina wërngal këpp ngir ñu càmbar ci naka la ñuy ay àq Afrique ci wàllum énergie. ñun nag euh, ñu bëgg a jouer suñu partition dajale pays africains yi mais suñu yenn parties euh, partenaires yi nga xam ñu ngi nekk fu nekk ci àdduna bi ñu mën a dajaloo waxtaan wasaare xam-xam yi. ba nga xamante ni Afrique na mën a gën am baatam si discussion ni am si wàllu énergie mais yeneen wàllu wàllu euh, nga xam dafay considérer yenn sujet yi nga xam ne dafay considérer développement. jeexital boobee nag njiit yi nar ko doxal sukkandiku nag ci xarañte bi nga xam ne danañ ko génne ci waxtaan yi lee bu ñu xalaatee tey ne dañu war a def conférence ci domaine bu technique bu mel noonu amal solo réew mi ci question de développement dafa baaxoon man mi nga xam ne maay ministre de bi ma ñëw teewe ko li ma fi jot a dégg nag dal na xel buñ ci taxawee ministère bi jàppale leen gouvernement jàppale leen fii ak at yi di ñëw ci mbirum énergie mbirum électricité ak yeneen Sénégal kenn du leen ci ëpp doole. ci li jëm ci wàllum genre rek bi nga xam ne yokk nañ ko ci thème bi ñuy xamle ne li ko waral mooy ñàkkub yemale bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci secteur énergie bi. boo demee si dëkk yu bëri jigéen ñi ñooy taxani ñoo uti ndox. Euh, ba tax na seen li jox wax accès à l'énergie si jigéen ñi li gën a néew yi ko si góor ñi am na yenn implication yu bëri yoo xam tamit am nañ ay résultat yu bëri yoo xamante ni ko discuter càmbar ko si conférence bi. mu doon ñaari fan yi nga xam ne dinañu waxtaan lu yaatu. ci forum bile ngir càmbar initiative yi ñu jël ci àddina bi la lépp lu jëm ci wàllum énergie renouvelable ak itam technologie yi muy àndal ñu xool nag ana naka lay Afrique di mën a jëfandikoo jumtukaay yooyee ba pare di sàmm alam ji